dese coon bi de xëy na nuñ ko déggee rek dimanche moom vraiment ñëpp am nañ lu leen métti parce que coon moom day modèle boo xam ne si Sénégal ñëpp ko xam mu nekk nit ku mën a woy nekk nit koo xam ne tamit ku ku vraiment tamit ay woyam day remarqué nit ñi mu nekk nit koo xam ne tamit ku baax la vraiment desem bi vraiment ñëpp la jàpp wax dëgg yàlla coon sekk moom ah, bett nañu daal bett nañu trop bett nañu trop daal mun nga bett nañu trop. di mastaw ñëpp ci lu ñu bokk. Papa Thione franchement chanteur du peuple lañ koy wax chanteur de la nation démb dama jooy xàcc sama mag ngi nii toog mën na ko seet dama doon jooy jooy yu métti ndax bëgg Papa Thione na ko yàlla xare aljana ñu yokk ñaan yi di wax nag Wally Balago bu mu dellu ginnaaw ci kanam rek bu mu déglu kenn te nu xam ne instant bi mooy kilifa kër gi na gën a yokk liggéey bi gën a bàyyi xel njaboot gi. koo xam-xam ni monument de la musique sénégalaise la woon donc ñu koy jaaree ñëpp ak waa famem ak kullu muy ci Sénégal. waa di ko métitlu comme Sénégal yëpp di jaale Sénégal yëpp Papa Thione di ko jaale waa lii di ko jaale waa Soufouar di ko jaale tout le ñëpp am nañ ñu leen metti ñëpp am nañ ñu leen naqari mais bon ainsi va la vie sant rek. marqué na waa Sénégal yëpp daal waaw marqué na ñëpp vraiment parce que Thione doon nañu bégal waaw vraiment mag mu baax la woon ku ñàkkoon caaxaan la ku amoon fula ci boppam la. waaw vraiment ñun jeunes yi moom marqué nañu bu baax a baax a baax a baax a baax. ban morceau moo la gën a marqué. ah Moumy Bally euh, parce que son bi dafa neex nee na ko doo fekkee fu ñu may néewalee fu ma xewle yaa fay jiitu kuy door a mën kuy saaga xam nga ne kon loolu yëg-yëg bi dafa dafa fort daal li mu ko woowee dafa fort waa da koo baax ndax xaritam la te xarit dëgg noonu lay féete woo moromam moom la tuddee taawa Moumy waaye jël taaw boobu tamit tuddee ko doomam bu jigéen Moumy kon xam nga dafa importance si Papa waaw moom i Kébé waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm euh, Rasoul Muhammad Rasoululaay parce que xam nga ni képp kuy jullit bu ñu woowee yonent bi sa xol dafa war a tooy franchement woy boobu dafa des sama xol bi te du dañ abadan. morso jaaga bi nag moom a gën a neex jaaga bi morso jaaga bi daal parce que fi mu wooyee jaaga man damay toog maag sama jabar sax mais dama koy dafa may neex parce que morso boobu nekk ne morso boo xam ne moog jaaga message yu mu si véhiculé dafa neex trop ba day ba dafa may jàpp sax maag sama jabar. boobu morceau bu marqué na ma trop trop trop trop si moom à ah, tout le temps bu ñu ko tegee rek ah, damay toog sama jabar mais dama si jàngat lu bëri daal dama si jàngat lu bëri. Euh, morceau bi ma gën a marqué nag ay morsam sax yëpp mi ma marqué mais boobu bi ma gën a marqué mooy bi muy waay yaayam Mathio donc surtout refrain bi mu naan euh, boo bëggee jot sama jikko tuddal sama yaay c'est-à-dire que loolu ça montre l'attachement qu'il a qu'il avait avec avec sa mère donc son boo xam ni la ñun ñëpp war nañ ci bàyyi xel xam ni sunu yaay mu sunu yaay ñooy sunu ñooy sunu lépp. neuf mois ñu ëmbal la ko ba pare nga juddu coonay douze mois yooyu noonu tamit kenn mënu ko gérer keneen ku dul ku mën a jur quoi c'est ça. bu ñu koy doom baay na ma trop parce que diggante doom baay dafa nekk daal loo xam ne wujje la daal quoi wujje la quoi parce que boo nekkee sa doom baay mu am benn affaire yow kut ko kut da koy bëgg a am quoi. moo tax affaire doom baay daal xaw a yéeme quoi moo tax mu nekk loo xam ne daal marqué na mu baax a baax parce mu ngi naan doom baay bul lekk reer bi ba ma quoi waaw boo lekkee reer bi fu may reere waaw vraiment wa suñu yoon nekkuñu ci bilaay waaw wooy boobu moom marqué na ma trop vraiment waaw bëgg naa daali ma daa boobu moom neex na ma trop mhm. comme wayam yëpp sax wayam yëpp jàngale la wayam yëpp neex na sant yàlla daal métti na ñu góor wu bàyyi seen empreinte comme ni mu ko defee parce que am na jëw bu rafet lu mu way rek téere la mais sant yàlla daal comme ni ñu ko waxee rek